920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype sunu Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio sunu Mbokui, mbokk yi émission bu l'info autrement l'info autrement de émission bi nga Radio Sunuker sunu kër ak sunu si vous 16h à Dakar Dakaru 18h à Paris Mbokui, Radio rajo sunu Agien, ak Arwa l'Amazon international la linga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 mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen l'info autrement tey jii nag di mardi le 12 octobre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy rëy rëy di dellu siwaat fii ci seen beneen émission macha allah alhamdulillah di len ñaanal jamm di ko ñaanal seen njaboot di nuyu soxna Rama Diagne dafa amé empêchement di nuyu aussi Ahmadou Diop di ko ñaanal jamm yalla yëkëti ko may ko wër ba mu dellu ci war reprendre émission bi nga xamné mardi bu nekk la lañ koy defal muy xew xew rew mi ñu dellu ci tay ginaaw bu ñu nuyo sénégalais yi un peu partout à travers le monde di jox ku ci nekk fi nga nekk loxo di la wax alaykum di len fatali ne ngeen japp lañu partager application bi pour que nit ñi télécharger radio bi di rappeler aussi ñi nga xamantene dañu perte émission bi mën nañ toujours dem à la minute bu ñu paree émission rek émission bi dina nekk ci YouTube sunu page YouTube bu tudd rajo sunu kër FM nekk aussi ci sunu page yi nekk ci Facebook muy page sunu kër FM bi ak page sunu kër point com man it sama wàllu boobu dinaa ko partager sama page personnelle ak sama compte Facebook. pour ñu ko bëgg a dégluwaat di sàkku rek ñu partager sunu application bi ndax téléchargement yi gën a bëri te ngeen di woote ci Skype rajo sunu kër di partage seen expérience ak seen xam-xam par rapport ak sujet yi ñuy souligner dina tax ñu jàng ci yéen dina tax aussi ñu échangeante ci xam-xam yu bari yu doomu aadama yi am te amuñu opportunité di wax ci rajo ñun ñu am chance nekk ci côté micro bi ngeen nekk ci côté haut-parleur yi tekkiwul ne ñoo leen ëpp xam-xam débat bi lu mu élevé élevé am na ñu am xam-xam ñu ko gën a mën a yëkkati ñu ngi leen di invité vraiment di leen woo te bu ñu juumee it sàkku nañu ñi gën a xam te gën ñoo xam ci mbir mu ñu aborder te peut-être ñu ko en profondeur muy muy en vertical ñu ñëw rek cof ko dem en horizontal ñu ngi leen di ñaan ñoom ñu ñëw nekk suñu ay maître jubbanti ñu jàngal ñu ndax sénégalais yi rek jariñu si parce que loolu moo tax a jóg rajo bi une rajo informative une rajo utile voilà boo xamante ne day wesaare xam-xam di wasaare bëgg Sénégal di wasaare bëggante ci sénégalais yi loolu rek lañu ci jublu bëgguñu mu doon une rajo qui divise ginnaaw nag bi nga xamante ne nuyoo bi jàll na tey presse bi dafa bëri ay sujets yu bëri yoo xamante ne laal na ko mais mu am benn information bu am njariñ boo xamante ne ministre du tourisme def ko jël jël une décision boo xamante ne mooy képp koo xamante ne jël nga vaccin yi te nga war a jël destination Sénégal jarul ngay def test bu njëkk ba dañ lay def loo test vraiment 48 heures à 72 heures bala ngay tukki nga def test bi waaye bu fekkee ne vacciné wu nga ñi vacciné wu nag la ñu wax <laughs> parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne ba tey ñi mel ni a xam ba tey ñoom daal nanguwu ñoo vacciné wu parce que nee nañu wóolu wuñu vaccin bi ñooñu vacciné wul nag ñoom bu ñu dee ñëw Sénégal xaw ma sax ndax ku vacciné wul danañ ko bàyyi mu jël avion wala déet waaye daal ku vacciné wul moom beneen questionnement la boo xamante ne xëy na di ko laaj les autorité sanitaire yi nga xamante ne ñoo lëkkaloo ak ministère du tourisme ak des transports aériens ñoom ñu jël ban décision la ñuy jël ci ñooñu nga xamante ne vacciné wuñ waaye ku vacciné euh, Sénégal mën nga fa dugg te doo def test bi la daan defloo 48 heures à 72 heures décret bi déw euh, lañ ko signé euh, euh, pour pour pour pour sénégalais yoy wala ñi nga xamantene dañuy jël avion nara ñëw visiter Sénégal Lolu bien information la xëy c'est une bonne nouvelle pour les les les sénégalais de la diaspora voilà Benen information bi nga xamantene ne bëggoon ko partager aussi modi demb dañoo aborder li nga xamante ne moo doon procès bu Thomas Sankara dañu ko mujj dañ ko mujju renvoyé ba le vingt cinq octobre maanaam trent quatre ans après son assassinat ñi nga xamante ne ñooñ lañu ñu jiiñ ña ñoom ñoo ko def ñoo ko rey te ki ci ki ci kaw doonoon xaritu benn bakkanam te remplacé woon ko muy Blaise Compaoré nga xam ne dafa refuser comparaître jël nañu daal procès boobu

waxoon ci sunu xalaat aussi mu jëm ci mbirum bébé calciné boobu nga xam ne mooy doom mooy doomu famille Saleh yaasin sale dañoo mujj arrêté ki nga xamante ne moom moo di DG clinique bi ak trois autres personnes yoo xamante ne dañoo jàpp ni négligence criminelle bi am ci doomu libaane bii bébé libaane bii moom daal lu jéggi dayo la ñu daal di koy ñu daal di leen jàpp pour négligence criminelle xamuñu nag yan lan la ñuy encourir enquête bi dem na ba ñu ba ñu jàpp ne négligence criminelle la waaye jàpp nañ leen. te démb am na lu ñu ci waxtaan ndax dañu ne négligence criminelle yi ñuy wax tey mu nekk ci négli bokk ci négligence médicale yi ñuy rey doomu sénégalais yi saa su ne te du non seulement presque du ko jëlee ni mu ko jëlee ñu jàpp ne li mu doon doomu libaane la ndax démb. benn benn gen camion wala ba benn fourgonnette dafa écrasé benn taalibe ci VDN bi ba mu dee maanaam da ko écrasé euh, presse bi wax na ci mais ni ñu ci waxee tol te yaakaaruma ne dinañ ci appesantiru comme ni ñu appesantiroo ci décès bi nga xamante ne moo am euh, juste avant week bi ni ñu ko relaté ci information yi ba ñëpp dégg ko ba enquête bu rëy am ci ñu ngi seet est-ce que taalibe boobu nga xam ne moom xëy na du ñu xam sax kan mooy yaayam ak papaam wala même buñ ko xamee du ñu doon ay nit ñoo xamante ne amal na leen njariñ goo xamante ne dinañ ko def à la une de leurs journaux comme ni ñu ko defee ci xale boobu nga xamante ne dafa dee ca hôpital ba muy muy muy clinique des mamelles mën na am traitement bi dina wuute ñu ngi koy suivre nag jàpp nañu daal ki nga xamante ne moo doon DG bi ak trois personnes arrêté nañ leen def leen garde à vue euh, di seet nag est-ce que dañ leen di mujj jiiñ leen li ñu leen jiiñ yóbbu leen ci kaso bi waaye fexe aussi ba ñu jàkkaarloo ak juge pour ñu mën leen a juger teg leen ay daan te loolu bu amee it importance su famille bi xale bi dëkk moom moo ko waral déjà ñëpp d'accord nañu ci loolu waaw loolu moom ñëpp d'accord nañu ci am na ci ñoo xamante ne ba tey ñu ngi daw di xeex ci réew mi loo xamante ne tegul dara du ci ay erreur yu ñuy def wala ñuy faat ay nit ay stagiaire di juge ay France di ñëw di di def seeni seeni stage d'opération ci sunu kaw ñu ne dañu nuy dimbali te duñu yónnee ay médecins yu mag a mag yu mag mais ay élèves lañ ñuy yónnee ci sunu hôpitaux yi lu mel ni ko hôpital principal ñu fay def ay li nga xamante ne moo di ay opération dajale ay feebar ay nit ñu am ay feebar ne dañ leen di opérer te à fin ñu ci bari ci ñoom dañuy faatu yaa ngi koy kaas donc nañ ko suivre à la lettre li nga xamante ne xalaatoon nañ ko si aussi dinañ ko ci wax beneen événement bu am njariñ boo xam ne bëgg naa ci waxtaan tuuti euh, ñaar lañu benn bi moo di ubbi tey grève suba ndeysaan Sénégal Sénégal moo ëpp moo ay ay politiciens véreux ay politiciens qui n'ont pas le courage de créer leur parti politique et de concourir à la à la à à la de concourir aux élections présidentielles ou législatives pour acquérir le pouvoir ou bien être député à l'Assemblée nationale dañu am ay politiciens yo xamantene ba lañuy déclarer sen ambition politique moy ci une profession yi a koy commencer don ay ay syndicaliste ñu bari ci am ay politiciens yu bari nu ñu xam ay ay politiciens yu rëy làmmiñ ñoo xamante ne tey ñu ngi ci politique ñi gën a ñaaw làmmiñ ñi gën a virulent seen appren apprentissage duñ ko defee fenn lu dul ci syndicalisme parce que li la koy wax mooy ay revendication yoo xamante ne duñu mës a am solution ndax déjà ñoom xam nañu ne li ñuy laaj nguur gi soit nguur gi amu ko soit nguur gi day préférer sàcc xaalis bi génne ko bitim réew ko jox leen ko ñoom maam dañuy préférer sàcc ko que di ko dugal ci ci ci ci njàngum réew mi wala soit ñu nangu ko sàcc wala ñu ñu ñu ñu bañ koo def ci santé réew mi ñoom noonu la koy defee bu ko defee bu waa éducation les enseignants grévé tey ginnaaw suba ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci hôpitaux yi lay doon lay doon bu ñu doonu lay ay infirmier dañuy doon même ay staff staff bi nga xamante ne ñooy liggéey ci hôpitaux bi ñoom ñëpp dañoo yore ay syndical ñoom ñëpp a ko yore tanto c'est les médecins tantôt c'est les infirmiers tantôt c'est les c'est le staff médical ku ci nekk yore sa syndicat te ku ci neex mën nga bloquer processus de fonctionnement de la santé ou de l'éducation xam nga ñooñu liggéeyuñu pour réew mi loolu il faut que nous soyons ñu d'accord parce que si nous leen blâmer pas pour cent ndax suñu kaw ngay ci kaw ngay ni nga xam ne ñoo jiite réew mi ñoom seen wàllu bopp gëmuñu réew mi parce que bu ñu réew gëmoon réew mi yenn milliards li ñuy injecté ci ay domaines yoo xamante ne c'est pas impératif duñu ko jël di ko def foofu te bàyyi fu mel ni santé wala éducation wax dëgg yàlla duñu ko bàyyi duñu ko def waaye ñoom dañuy préférer jël alal googu di ko def fenn foo xamante ne amalu leen njariñ waaye njariñ bi leen di amal daanaka moo di mbirum politique rek lañ koy lañ ko fay génne di ko fa def bàyyi ay secteurs yoo xamante ne c'est c'est des secteurs de survi yoo xamante ne dañu fa war a dund maanaam nit ñi am ci ay espoir yu mag mooy jàng mooy wérgu yaram dañ leen négliger te loolu ñëpp xam nañ ko moo tax bala ngay déglu mbirum grève ci mbirum éducation rek ñu ne école ubbi na bu ñuy ubbi tey rek bu subaa ñu commencé na dañuy grève parce que ñoom dañu jàpp ne moo moment boobu rek la ñu am ngir mettre la pression sur le gouvernement pour ay revendication te man li ma si jaaxal mooy revendication boo dégg rek dafa mel ni kenn du ko mos a mos a mos a mos a solutionné soit man dama jàpp ne enseignants yi bëgg bëgguñu jàngale parce que salaire yi ñu leen di fay baaxul léegi nag ñoom bu ñu man su ma liggéeyee neuf mois ak salaire bu ñu may fay jaru ko donc damay paralyser enseignement bi au moins quatre mois jëm cinq mois bu ko defee yeneen quatre mois yi ci des ñu dab dabal gars yi dem def examen eh, xale yi échec la la majeure partie échec ñi amoon moyen doon jàng seen biir kër yi jàll wutal seeni doom ay billet ñu génn réew mi mais man duma ma jàngale neuf mois ñu may fay salaire bu misérable man loolu laa jàpp ne calcul boobu la def parce que ñoom ñëpp dañuy xar matti toute l'année am na ñoo xam ne seen kër yi lañ leen di fekk di leen jàngale ñu leen di fay am ñoo xam ne ci école privée la ñuy dem di jàngale dañuy grève kay ci école publique bi ba pare dem di jàngale ci école privée yi wala ñuy def ay cours particuliers yoo xamante ne ci biir ci ñi am moyen la ñu koy defee seen biir kër yi bu ko defee nag réew mi am ay nit ñoo xamante ne dañ naan la jàng nañu ba pare ñu gis ne jàng bi amul benn njariñ gis nga fu mu toll ni ñëpp ñooy kaas di wax ne démb rek ñu ngi yónnee benn émission bu may bu may seetaan waa ji li mu doon kaas yëpp moo di niveau bas de l'éducation nee na même boo demee université xale yi xamuñu dara nee na ma xale nee na ñeneen xale yi xamuñu dara mais xale yi naka la ñuy xamee dara bu fekkee ne xale yi duñ leen bàyyi ñu jàng école te loolu enseignant yi si lañu ñu bokk enseignant yi ay complice lañu ci parce que mbirum alalu àdduna moom ci waat goo xam ne dañu ko def ne ñoom dañuy jàngale mais war ngaa seet ay solution yoo xam ne da ngay jàngale ñun bi ñuy jàng école boobu élèves yi ñoo daan grève te gis nga gis nga grève bii nii bokkul ak grève u yi de moo tax moo tax système sunu système éducatif boo gisee ni mu delloo ginnaaw dafa am ay facteurs yu entrer en jeu ba tax na système éducatif bi baaxul ndax enseignant bi bu grève ba pare loolu grève boobu bokkul ak grève bi lycéens yi di def bokkul ak grève bi waa université di def nga xam ne à tous les niveaux dafay am ay pièges yoo xamante ne mooy yàq njàngu njàngu réew mi à tous les niveaux grève élève yi nga xam ne dañuy nekk ba ba ba ba a def bac ci lycée yi bokkul ak grève yi nga xamante ne moom la ñuy def à l'université te loolu mooy étudiant yi et élève day grève étudiant grève nga dem léegi professeur grève ba pare professeur d'université toog doog ñëw di grève ku ci nekk daal da nga bëgg a defe ne même te nag li ma la li la ci bëgg wan mooy ñii doon le politicien de demain foofu lañu ñuy seen apprentissage waxoon naa leen ko fi ay émission ci ay jamono am na ci ñoo xamante ne tey ay ay ay ay leader politique lañu boo leen laajee kañ nga commencé grève lycée la ñu ko commencé ay ñoom Talla Sylla yi ngay gis nii yëpp ah ay ñoom maître El Hadj Diouf ay ñoom Macky Sall ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ay ñoom ay Mamadou Diagne Fada mais la liste est loin d'être exhaustive moo tax syndicalistes yi ngeen gis tey ñuy ñuy ñuy ñoom ñoom Birima ak ñeneen ñi ah ak ak euh, maa ngi fàtti turu waa ji ñoom daam daam mbooj la xaw ma ñoom ñëpp ci école yi lañu ko tàmbale maanaam ñun Sénégal ñun dañuy def apprentissage discours ak bañ bañ te discours ak bañ bi yëpp dañ koy jiital pour doon ay bañkat waaye ñoom ca école ba la ñuy doonee defee apprentissage maanaam jiite ay nit di yéeg ci ay plateau di wax ñun suñu jamono ay lycée Blaise Diagne ay Saka Zulu nga doon dégg ay bëy ba ak ñeneen ñoo xam ne xamuma leen ñoo daan jiite grève yi ñooñu bu ñu demee université fekk fa ñeneen ñenn ci ñi may lim nii foofu la ñu koy jànge bu ñu duggee ci syndical bu ñu demee di jàng ci benn bërëb ne waaw comme que man maa ngi doon jiite ay greffes léegi def naa ko université donc maa ngi liggéeye fii ñu créé benn syndicat ngeen baal ma ba ci Ousmane Sonko mi ci syndicalisme la jugee nekk un politicien ah. ma bokkal ko ci liste bi gars yi maanaam ci mbirum syndical maanaam sunu réew sunu réew mi apprentissage politique boo ko dee def rek ci ay grève nga koy commencé quoi yéen ngi fi fàttali ko ay Mademba Sock bi bi bi bi bi muy téye bi ñuy def ay ay coupure de courant ci Sénélec bi mais seen syndicat SUTSAS boobu UTSAS moom moo ko waraloon à la fin nu mu mujjee moom ci wàllu boppam nekkoon na candidat élection présidentielle déclaré wu. mi ñun ñooy ñooy kale suñu bopp ñun ñooy yàqal suñu bopp ñun ñoo sérieuxwul en fait ñun ñoo sérieuxwul ah parce que boo gisee li tax politiciens yi du ñu juboo mooy ñoom ñëpp ay kaaskat lañu kaaskat boo fekkee benn nit boo xam ne kaaskat la mënuloo fexe ba satisfaire ko affaire day mujj dem ba nekk jeu parce que attention bi ñuy am bu ñu nekkee ay ay ay grévistes attention bu ñuy am ñu naan grève bi déclaré nañu 72 heures renouvelable di ci sax ni ñu di leen jox attention presse presse bi di leen xool wala ñuy ñëw ci école yi di yëg ci kaw di wax seen moroom yi di leen déglu di leen gis dañuy dem ba affaire bi nekk benn virus. virus boobu nag bu leen duggee dootuñu ko mën a mën a ti bàyyi moo tax même bu ñu demee ba doon avocat dañuy doon ay avocats de spectacle suivez mon regard. dañuy mujj doon des avocats de spectacle bu ñu doonee ay politiciens dañuy doon ay politiciens de spectacle seen lépp bépp métier bu ñu am yooy la ñuy def parce que attention bi ñuy dem moo mujj moo mujj nekk ci ñoom virus mooy maanaam ñoom seetuñu jàmm quoi ñoom li ñuy wut mooy nañuy wax ci ñoom rek dañuy yore ay parti politique bidon di taxawaalu ci réew mi amuñu benn ambition ñu ëpp ñag ci ñoom laay wax nii de am na ci ñoom ñoo xamante ne ñoom xëy na seen yoon foofu la jaaree mais am na lu ñu bëgg ba am na benn changement bu ñu bëgg a def ci réew mi mais ñi ëpp ci ñoom li ñuy wut rek mooy fexe ba doon une attention nationale presse bi di wax ci ñoom de temps en temps bu ñu demee bañ leen bëgg a fàtte rek ñu génn lii nag moo waral tey ñu ne ubbi ubbi tey grève suba enseignants yi cinquante pour cent ci enseignants yi ñoom dem nañu def rentrée bi commencé jàngal xale yi xam ne am na benn àq boo xam ne am nañu ko ci réew mi réew mi leen jàngal réew mi ñoo leen di fay réew mi ñoo leen wutal liggéey ñu xam ne am nañu àq ci réew mi ñooñu dem nañu noom ne dañuy jàngi parce que am na ci ñoo xamante ne syndiqué wu ñu de ñoom bokkuñu fenn parce que xam nañu jeu jeu leader yi waaw xam nañu ko mais ay benn maanaam syndicat des enseignants boo ko do boo doon seet ñaata la ñu ci yore gis nga ni parti politique yi toll ñoom noonu lañ ko noonu la ñu toll ah. wala ñu jege ko parce que ñoom ñëpp am am am am am kii dañ naan dañuy créer syndicat buñ ci amulee cër wu am doole rek di am ci baat bu ñuy wax wala ñuy war a dem ci télé di wax rek xam nga lan la ñuy mujj def tas ko dem dem ci dem créer beneen wala ñu gedd foofu dem créer beneen ñoom noonu la ñuy def. motax ñu ngi fi fess del structure étatique bo gis amna ay syndicaliste lool nak day paralyser le fonctionnement de ce pays su fekké né da ngeen am problème avec nos politiciens da ngeen di dugg ci parti politique yi ngeen xeex ko parce que bo démé fu mu ba nga gis né parti politique dañoo faible amuñu doolé ah ku nekk bëgg c'est parce que ku nekk da nga bëgg a nekk njiit bu ñu ba ay PDS bi daan bi daan révélo moo dem ba amatul sax <laughs> leader bu am njariñ ña fa nekkoon ñëpp ñu formé ne dans les années quatre vingt quatre vingt dix ba deux mille ñëpp dem nañu fu mu toll nii ku ci nekk créé nga sa parti politique ñii wut lu ñu am dem nañu rejoindre Macky Sall ñu jox leen ay poste directeur DG parce que liggéey la ñu wut amuñu formation ah un ancien gréviste du mos a jeexal jàngam am na ci ñoo xamee il a fallu Ablaye wad fa leen ministre ñuy doog dem def seni i doctorat wala seen seen i seen i seen yeggali seen jàng taluñu ko perturber rek c'est des perturbateurs publics motax rew mi fu mu toll dinañ dem ba jamono jo xamantene te yegg nañu ci sax moy ku ci nek rek am nga ambition ku ci nek am nga ambition dañ doon wax neen Abdou Diouf bañ ko falé ministre du plan mu joggé gouverneur nek ministre du plan jekki-jekki jaar ay ay poste yi mu jaar yëpp fu mu toll nii ku ñu fa fal rek yaakaar nga ne yow it mën nga jóge foofu pour don président suñ la defee PCA da nga ne ah Macky Sall nekkoon na PCA man tamit donc mu ngi nekk président donc man mën naa am chance boobu ku ñu def ministre de l'intérieur nga yaakaar ne Macky Sall nekkoon na ministre de l'intérieur kon yow war nga ko mën a nekk parce que information yi ñëw ci yow ta nga yore ko tax na nga defee ne maîtriser nga réew mi ñoom ñëpp ñu ngi rêvé ñu occuper poste yoy nga xamné les anciens présidents occupé woon nañ ko ñomit ñu ngi rêvé ne kon war nañ fa mëna a doon président nga gis leen ku ci nek di nas sa ay comité politique réew mi nek ci 365 jours de politique man Sénégal ba tay damay jékki-jékki di xalat né Sénégal ni muy doxé ni sax bañu koy tuddu des fois ci yenn ay affaires yi dama ne bu bu sénégalais yi sérieux woon heure bi kon kenn waxatu ko Sénégal mel na ni comme ay Dubaay quoi waroon nañ raw fii bu yàgg mais réew moo xam ne ñëpp ñoo am ambition ñëpp ñooy yàqalante ngir jiite man bu tollee fu mu toll ni sax dafa ma jaaxal ah. man ba léegi lii li mu écrasé wul man daf ma tiital daf ma jaaxal euh, beneen bi ci tegu ma bëggoon cee jox sama input moo di waa kër Ousmane Sonko yi dinaa teg sax benn élément benn témoin même bu fekkee ne du <laughs> jëluma beneen côté bi ñoom seen version dañu ma ko yónnee rek mu di nee na ñooy Sonko dafa demoon def benn visite ca Casamance dem jaale ji et puis ci loolu lañu ko invité mu war a rencontrer ay marchands ambulants d'après récit soxna si euh, bi mu demee di rencontrer marchand ambulant yooyu nee nañu quartier bi mu doon amee dafa doon quartier bi nga xamante ne zone bu duudu kala muy koo xamante ne moom it politicien Benno Bokk Yaakaar la te ay jamono doon laale bu baax ak Ablaye Balde waaye léegi d'accord na ne Ablaye Balde mooy seefam nee na Ablaye Balde moo leen ëpp doole fuuf que Ablaye Balde moom moom Ziguinchor moo ko maîtriser ma nga fa nekk maire mu ngi bëgg a yàgg mu bëgg a yàgg moom bokk na ci maire yi nga xamante ne yàgg nañu lool di jiite waaw ñu mel ni Omar Sarr ñu mel ni Alelo am na benn maire bu tudd Alelo boo xamante ne moom <laughs> ne ko waa waa PS bu ñëwee mu ànd ak ñoom bu waa libéraux yi ñëwee ñu ànd ak ñoom léegi fu mu toll nii mouvance présidence présidentielle mom dal fa la bokk waaw so gisee ñoo maire yooyu nga xamné ñoy défé ñoy ñoo ñooy soppeeku ay kakatar lañu nañu ma baal nekkul ne dama focus ci mom dé parce que du ci mom kessé tay boko doon lim amna ci ay maire yo xamante manam ay 40 ans ñu ko nek ay maire je te le jure ay 40 ans amna ci yo xamné ay 30 ans am ñoo xamné ay 20 ans non lañ ko nekkee ci ci ay gox dañuy dem ba mel ni ñoom ñoom moom dëkk ba dafay mel ni dëkk boobu amul ay jeunes quoi ñu ñëw song leen challenge leen wala dafay doon ay jeunes yoo am ne xëy na amuñu ambition mooy maanaam bëgguñu avancement. parce que boo amee sa benn papa sa benn maam boo xamante ne mu ngi jiite benn gox ay ati ati ati ati ati at ngeen dem ba màgg vraiment li xale mën mag mënu ko mag am na yenn âge yoo xam ne bu ci tolloo day tëdd di nelaw rek di lekk di nelaw rek. wala ku njëkk a boole rek mu ne mu ne mu ne mu ne yow la àndala ah, wala ku njëkk gën a néew doole mu mu faral la da koy xool ci sunu maam yi rek ne ni def ñaari sët bu ñuy jote sax day seet sët bi ci gën a tuuti rek lay faral paa nag nga xam ne dañuy doon ay maire yu yàgg yi yii rek la ñuy def seen réew yi ah waaw seen réew yi yooyu rek lañu fay def dañ fay yàgg-yàgg goo xamante ne maanaam day mel ni gox gi ñoo ko moom parce que maire yi ñoo moom terrain yi ku neex la ñuy jox terrain yi maire yi ñooy jaay terrain yi ñoo koy maye euh, maanaam lépp lu ñuy def ci gox bi daal ñoom ñoo koy dogal ñu def ay ati ati ati ati at duñ ko nangoo bàyyeeg benn xale léegi nag xale yi ñoom ñooy nelaw mais bu ñuy yeewu woon bu ñu yeew woon tuuti ah kon am na ci euh, am na ci ay maire yu mel ni El Hadj Mass Gueye nga xam ne ay quarante quarante quatre ans def na ko à de Mbayeen duñu fa duñu fa def duñu fa def at yooyu hmm? ay mairie yoo xamante ne mairie nga de de Ngandiouf nga xam ne depuis 1990 xool leen loolu ni mu yàggee nguur siis moo fa nekk nguur siis boo xam ne def na fa cent depuis 1990 la fa nekk maire ah saa yu jeexee rek ñu ñu ñu ñu gañewaat day mel ni amul ay jeunes ah ñii ay régime bu ñëw. ñu soppeeku ànd ak yow parce que bëgguñu perte seen parce que dañuy jël moyens yi nu am dañuy jël moyens yi nu am di ko utiliser ci biir ci biir kii ba maanaam dañuy mel ni ñoom moom dëkk ba daal loolu la demee léegi nag jote nañu ak waa kër Ousmane Sonko yi nee nañ daal ñoom bi ñu nekkee di def seen réunion ci la ñu génn damay teg récit bi bu ko defee ngeen déglu ko seen bopp euh, bu ko defee ñu ñëw commenté ko. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum waa Pastef te 24 nuyu naa leen euh, man la Fat Bintou Diédhiou depuis Ziguinchor man nag bokk naa ci cortège Sonko bi ñu doon dem noon tey waaw Sonko nag teeroom bi comme nu nga ko waxee yow kii ku ma fekk ci bunte bi yow la bu dee teeru rek la kenn du fi xeej bi ñëpp yëg nañ ko mais dañu ne. buggul teeru parce que comme ñëwul yëpp politique dafa ñëw pour jaale dafa ñëw pour jaale en plus dafa ñëw pour rencontrer kii mooy yeneen kii nga xam ne dañuy liggéey fii si Ziguinchor moom la ñëw gis ñëwul pour affaire politique comme ni mu ko waxee moo tax gars yi teeroo ñu ko def ñu ko sax ëkk yi waaw mais gis nga tey dañu jógee jaale dañu jóg njëkk a dem jaale waa bëriwuñu nag cortège bi bëriwuñu garde koorom yi am nañu ay quelque ay auto yu ñu ko accompagner ñi dem dañu njëkk a dem jaale dañu njëkk a dem jaale Santhiaba jógee Santhiaba jaar koñ duuduka waa marché mooy marchand kii commerçant yi ak waa kii nu mu tëti marchand ñoo ko woo pour pour gis ko daal waxtaan moom parce que chaque fois bu fi ñëwee mu ne ñu ne mosoon na dugg si kii bi marché bi waxtaan ak ñoom ñoom loolu doyuñ ko dañ ko bëgg a kii d'accord ak ñoom mu dem seet leen ñoom nag seen siège bi mu ngi nekk en fas kër Doudou seen siège bi foofu la nekk en face kër Doudou Ka seen siège seen siège bi foofu la nekk bu ñu eggee nag ñun bu ñuy eggee ak suñu cortège kenn newul woon foofu nag gisuñu kenn kenn newul woon foofu xanaa quelques nit rek lañ gis ñi dem egg ñi yëg yëg ba ci kaw nag yëg ñi yëga fekk fa gars yi commencé réunion bi nag macha allah réunion bi réunion nañu daan ba 15 minutes ni ñu dégg a yuuxu si suuf dinaa waa fii ñoo fi moom koñ bi Doudou Ka moo fi moom gaawal nga ñibbi yooyu lañ doon dégg si suuf yàggu rek ñu dégg ay xeer ay sandi ay xeer sandi ay xeer. te ñun bëriwuñu nag parce que comme affaire bi dafa choisir quelques nit pour ñu gungee ko bëriwuñu GPS Ziguinchor rek rek rek rek ñu Ziguinchor bu dee teeru comme par exemple bu dee ñëpp ñoo ko yëgoon comme bu ñu woon affaire ñëpp gunge ko ñiw sañ ñu sax attaqué sax kii cortège Sonko bi sañuñu ko sax mais comme dafa ñëw pour jaale bëriwuñu loolu moo tax ñuy am fit attaqué ñu nag bu ñu commencé noon di sandi di sandi sànni nag après nag. recteur ala Diédiou woo reñ woo woo GPS ne leen ah am nañu problème nag bëgg pare nañu réunion bi pour génn mais gars yi duudu ka ñu ngi ni di sandi ay xeer di kii comme ñoom dañoo préparé yëpp ay paaka yëpp gis nga keneen ki ku ngeen gis kuy génn sañe nii paaka lañ ko jam si bopp ko keneen ki mâchoire am yii lañu toj keneen ki loxoom bi moo moo dàmm si GPS lañu bokk gis ngeen kii nii dañu bënn boppam bi xam nga loolu jaaduwul jaaduwul ñoom nag dañu attaqué guerre nag guerre nag nañ ko am parce que Doudou Ka nam xalaat ne fii si biir Ziguinchor bii du fi def benn mitim léegi du fi def benn rencontre te du fi ñëw nuyu kenn fii nag Ziguinchor si biir Ziguinchor xanaa koñom rek koñom boobu bu kot xanaa foofu rek na mu yem foofu mais du fi dugg léegi fii comme guerre la attaqué guerre dañ koy guerre day saf mondial nag <laughs> ok nekkal la si jàmm. voilà loolu moo doon récit nga xamante ne euh, membre de PASTEF moom moo ko def di expliquer li nga xamante ne moom moo xew mais nag de l'autre côté waa kër Doudou Kay ñoom nee nañu dañ leen a provoqué waa Sonko yi ñoo leen provoqué xam nga nag c'est c'est une affaire très difficile à juger peut-être c'est une coïncidence malheureuse boo xamante ne moo créé ay doomu Sénégal ñu bokk ndey ak baay bokk benn ville te am na ci ñoo xamante ne ñoom ñi ñuy xeexal sax dëkkuñu fa dañuy nekk dañuy wax ne origine waa Casamance lañu rek mais bu ñu seetoon fu ñu juddoo màggoo fa boo demee koñ boobu dëkkuñu ci koñ bi te man nag kenn du jóge sa quartier ñëw di rey sama waa quartier loolu duma ko nangu mais nag politique la nit ñi fu mu ni nii politique de recrutement la ñuy def politicien bu ci woote rek nga defe ne waa Sénégal moom la ñu àndal politicien bu ci wax rek nga defe ne moom moo yore la solution de nos problèmes parce que ay éléments yu dangereux la ñu nag man moom li may wax mooy man duma ma ku dëkk beneen koñ ñëw fekk ma sama koñ maanaam man dama lay jox exemple man du ma dëkk aslem 1 waa aslem 2 ñëw di indi ay problème sama koñ may may dóor waa aslem 1 du ma ko def même bu fekkee ñoo bokk aslem duma fekk waa usine ñaari tali ñëw dugg biir aslem di ñu néewal doole ñun waa asalam te ñun duñ ci jug mooy mooy ñi nga xamante ne boo amee problème ñooy njëkk a jug ñi nga xamante ne boo maanaam boo amee malheur ñoo lay ñëw sauver su sa kër doon tàkk tey waa Sicap du ñu ñëw fay ko ñi nga dëkkal koñ bi ñoom ñoo koy ñëw faj bu dee asalam nga dëkk wala nga dëkk usine ñaari tali pourquoi ngay nangu ñeneen di juge feneen ñëw pour des causes politiques ñu lay xeexloo parce que politique soxlaa nañ ko ci leneen lu dul ay xeex mais nag soo wee ak ay con tu obligé parce que nag nit du la dóor nga ne nag da ngay frenko laay di daw wax dëgg yàlla loolu moom benn nit du benn nit bu am fit du ko nangu ah nga ñàkk fit ñàkk fit moom dina la yóbbu sax buñ la mbéjee buñ la mbéjee doo fayu doo buñ la doon rey sax nga tëdd bàyyi ñu rey la alors que nga xeexoon ba ñu ray la moo gën ndax mën nga cee mën nga cee jàll sauvé wala nga daw euh, beneen côté bi tamit nee nañu ñoom dañoo xam ne fii moom mooy fiefu Doudou Ka ñu ñëw fa ñoom di leen provoqué ñëw ba ci buntu këram parce que nee nañu gis nga ndaw si dégg nga récit bi mu wax nee na c'est la maison en face fa la seen siège nekk ak ak yu demee noonu moom moo indi coow li ñee nag jàpp ne ñoom dañ leen di provoqué ñoom it ñu ñëw ne dégagel xanaa xamuloo fiiw feefu diw la provoqué leen daal ku ci nekk daal yaa ngi provoqué sa morom ba ci la Ousmane Sonko def benn sorti boo xamante ne boo ko seetloo day mel ni sortie ba Ablaye Wade defoon bi ko waa kër bi ko waa parti socialiste yi sonalee bu ñu waxee rek ñu yónni leen yónni leen gémi yi gémi yi di dóor rek di damm di toj ay bopp mu ne leen ay gémi yi ay nit lañu boobu du ay waa PS ñooy xeex waaye dañ doon utiliser les forces répressives de l'État contre un parti politique mu ne leen bu jàpp bu leen bëggee door ngeen jàpp ci liif bi su sànnee lacrymogène bu explosé yéen ngeen nooyu ko ñoom buñ ko mënee supporter yéen tamit war ngeen ko ko mën a supporter ngeen jël ko sànniwaat leen ko ñoom buñ leen dooree liif ngeen door leen liif ndax amul benn loi buy wax ne ay nit mën nañoo jàpp ay nit di dóor bon jamono jooju loolu moo xewoon force de l'ordre la woon mais bii ay politiciens lañ te xam nga xam nga loolu ab Ablaye Wade doon wax dafa mujj dem ba moom ñi mu créé dañoo aussi violent que les éléments de waa ji nu mu tuddati sax te nekkoon ca palais ba Jean Collin ah moom moom bokkoon na ci saay-saay politique yi nga xamante ne gars yi loolu lañ daan def di dóore maa ngi fàttali ko am na ñun fa ñu dëkkoon amoon na benn élément boo xamante ne daa nekk parti socialiste mais waa ji boo ko gisee ab ponkal la ma nga am doole boo xamante ne karawaas sax la doon doxan la doon doxantoo ak Gourdin waaw karawaas sax la doon doxantoo ak Gourdin di doore di tiitalaate ba ñëpp ragal ko dem na ba am doom am ay seex tuddee kenn ki Jean Collin tuddee keneen ki Abdou Diouf <laughs> ci wàllu politique ndeysaan bëgg kii ba doon mujj gi moom ci wàllu boppam violence ba mu daan def ci moom la mujj tourné ndax dañ koo door yu door yoo xamante ne ci la jóge feebar ba ba muy faatu ci la jóge yàlla na ko yàlla yërëm mais ñooñu politique daf leen jaraloon lu ne ça à dire que ne dañuy dem ba nit di ko jàpp di ko jet parce que jet laa koy tuddee ci poli dañ lay jàpp di la jet di dugal sa ay bopp ay façon wax yu nekk ba nga dem ba jàppee nit ki nga xamante ne mooy sa leader politique que nit soo amee say doom sax da ngay bàyyi say mbokk bàyyi say rakk ak say mag ak say cousin ak say nijaay ak sa sëriñ su baax si sax nga koy tuddee ay politiciens quoi dañuy dem ba dof ci nangoo cee dee xeex yu metti demoon na ba nga xamante ne ñoom xeex yi ci seen biir la woon ñoom parti socialiste ca aslem wa keur Ayda Mbóoc yi si lañu bok bokk euh, Ayda Njong ci lañu bok ay rayante yu metti violence bobu nag nga xamné après instauré nañ ko mom moy def une continuité et ça devient pire avec cette nouvelle jeunesse que nous avons yo xamante non seulement ay grévistes lañu mais jànguñu jàng bu yegg bëgg opportunité bëgg le gain facile tout est devenu pire lépp loo xamante ne dañ ko daan xeex démb tey la raw tey ñii di agressé du ñu ay bandi du ñu ay guinsman du ñu ko ay tuxkatu yamba ay booy yu entraîné la ba noppi amuñu lu ñu def ñoom la ñuy recruter fu mu toll nii ci parti politique yi di leen yóbbu ñuy xeex ay mbër yu amul combat moo tax affaire bi dafa devenir pire géej nga leen di gis ñuy ñuy ñuy entraîné di daw ji di push up ñooñu ñooy jox guddi di agressé nit ñi waaye ñooñu la ñuy recruter aussi ñu doon ay ay faucon ay fo ay faucon moom lañ daan wax euh, euh, waa waa kii ñii ñëw ne les marauds du feu ñoom ñooy reyante ku ci nekk fu mu toll yaa ngi yore sa ay boy yoo xamante ne dañ leen di fayal sax ay jim dégg naa ñuy entraîner parce que bu ñu soxlaa xeex ñoom ñoo leen di xeexal gisoo ñii di ñii di garde gaay ay mbër lañu ay ancien mbër lañu ah ñoom ñëpp nag pouvoir ak opposition Ablaye Wade dafa demoon ba jël dégg nga ñooñu nga xamante ne ay faucon lañu ay ancien mbërëg ay ancien yëkkatikatu weñ ancien xeexkat yi dañ leen mujj dugal ci police bi jarbaatam boobu Lamine Faye kenn mosu koo xam ci police te te pourtant à la fin chef la fa mujj nekk ak ñeneen ak ñeneen euh, ñeneen ñi nekk ci biir am na ñoo xamante ne ci police bi dañ leen di fay par weer moo tax ñii nga xamante ne amuñu métier ñoom tamit dañuy ànd ak se politiciens pour yaakaar ni bu ëllëgee sañ-sañ bi ab Ablaye Wade amoon jël ñooñu dugal insérer leen ci police bi pour ñu mën a nekk sa garde rapproché ñoom ñu mën koo am. xam nga bu sa life ba nga xamante ne da nga da sa doole maanaam sa doole da nga yaakaar ne mooy mooy mooy garde nit doon gardien garde nit. sa life yëpp ci loolu nga ko def mais lépp loo xam ne dalay lay yëkkati ca kaw da ci ngay jaar te gars yi fi mu toll ni ci yooy la ñuy jaar ah. ku ci am doole am ay muscle rek ñu ne yow nga ne gardien ngay bëgg a nekk quoi gardien wala garde di corps quoi dem def ji ay certificat de training yore ay fital moo tax gis nga leen nit ñuy rayee nit ñi ñu ngi rey nit ñi di blessé nit ñi bu ñu rayee nit rek ngeen koy yëg mais bu ngeen doon xam ñaata nit la ñuy fital mais <laughs> mais mais day doy waar bu ñu tiitee rek fital une deux ñu ne la génne nañu euh, génne nañu ay fital def ay ay ay tir de sommation léegi nag Ousmane Sonko moom nee na am na lu mu ci wax nañu nañu déglu élément bi dañu déglu élément bi bu ko defee ngeen dégg li li ma leen doon wax moom it mu ngi woote ne ñoom dañ leen di agressé parce que ñi ñu jàpp ne ñoom ñoo leen di agressé mooy Nous nga parti parce que je lance un appel au peuple sénégalais. à commencer par nos propres militants aux sympathisants à tous les Sénégalais les patriotes organisez-vous et organisez votre défense moi je ne serai jamais quelqu'un qui va vous dire allez vous livrer allez vous faire tabasser allez vous faire blesser ces gens qui vous attaquent aujourd'hui sont une petite minorité vous êtes des milliers, voire des millions. C'est pourquoi je réitère mon appel aux forces de défense. Soit vous arrêtez ça, soit vous restez neutre et vous laissez les deux parties régler leurs problèmes. On verra qui est majoritaire dans ce pays. J'en appelle à la jeunesse de ce pays. Organisez-vous, n'attaquez personne. Ne tirez sur personne. Ne soyez pas les premiers à attaquer. N'insultez pas. Mais si on vous attaque, ripostez vigoureusement répliquer vigoureusement, à la hauteur de l'attaque que vous avez subie. J'assume cette position parce que je ne suis pas de ces hommes politiques qui ont peur d'être indexés. On va dire, oui, il est belliqueux, il est ceci. Mais je ne serai jamais un homme tout court qui acceptera de, donner la joue gauche après une gifle sur la joue droite. Je ne serai jamais cet homme-là. Dieu ne nous a pas recommandé cela. Personne ne nous a recommandé cela. Je ne l'accepterai pas. Macky Sall n'a pas plus de droits que moi dans ce pays. Et je réitère mon appel, organisez-vous partout pour faire face aux nervis de Macky Sall. Ce n'est pas une insurrection, vous n'en avez pas contre les institutions officielles de ce pays, vous n'en avez pas contre les forces de défense et de sécurité, vous en avez contre des bandits présidentiels. C'est du banditisme présidentiel dans ce pays. Organisez-vous pour faire face à, ces, ces nervis. Sonko donc ku ci nekk rek na nga jël sa responsabilité euh, bi ma déggee ne Ousmane sonk mu ngi dem Ziguinchor et puis ma dégg incident boobu fa xam ne am na fa euh, li ma njëkkoon a jàpp mooy euh, Doudou Ka day wut day wut tur day day essayer à plaire day essayer de défendre son son fief parce que politiciens yi li nga ci xamul mooy su benn opposant bu am doole au président de la république te lii dafa yàgg ci politique du Sénégal bu demee ba ñëw ci fiefu benen benen responsable politique yow da ngay def tout ba perturber ces manifestations comme ni nga xamante ne yow bu président bi doon ñëw ni nga koy jàppalee def ay pancarte wane ne moom nga andal. bu opposant bi ñëwee yow noonu nga war a demee perturber sa manifestation ba ñu xam ko bu ko defee dafay am ay récompense yu si jugee ay récompense politique ñoom seen wàllu bopp dañuy xam ne jàmbar nga mais boo boo fayiree à cette mission là ñoom dañu la koy xasee seetlu ngeen ci weekend bi yaa xam mbay ni mu génnee di dal ay responsable yoo xamante ne wala mu leen di jiiñ li mu leen di jiiñ di défendre président bi parce que moom ci loolu la amee li mu bëgg ci loolu la amee li mu yore attaqué na Aminata Tall attaqué na euh, kii Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp attaqué na leen ku ci nekk ak waa Fuuta Tampi ku ci nekk jiiñ na loo xamante ne ba si ñoom Diouf Sarr ci corruption boo xam ne nee na def nañu ko jëmale ko ci Fatoumata Ndiaye Fuuta Tampi ma jàppoon ne moom loolu lay def moom Doudou Ka mais bi ma jotee bi ma déggee récit bi mu mu mel ni moom fam fi mu koy defee en face foofu la gars yi dajale woon da nga naan c'est une incidence malheureuse wax dëgg yàlla coïncidence la coïncidence la ah ko int duma ko jàngatee nag noo xamante ne dama ciy féete dama ciy féete boor wax dëgg yàlla li nga xamee ne moom lay naqar rek mooy doomu sénégalais yu bokk ay quartier ñoom ñooy rayante seeni biir pour ñoo xamante ne dëkkuñu fa boo demee mën na am sax Doudou dëkkul foofu wala siège am rek moo fa nekk fan la màggee fan la jàngee fan la nekkoon gars yi dañuy dem ba am doole dem ndakaaru njaay ba miin ko wala ñu juddee fa ñu ne damay dem sama dëkku maam foofu laay dem déclaré wu ji waaw bu ñu ko defoon dakaar daanaka kenn du fa des <laughs> kon dañu koy bàyyee ñun ñu jël maire beeg jël jël jël localité yooyu yëpp doon fa ay maire waaw lébu yee koy jël waaw mais malheureusement am na ci ñoo xam ne nag bu ñu mënul conquérir dakaar da nga leen di gisa dañuy doon ay responsable de mais pour que ñu am doole dañu naan nañu dem seen dëkku baay wala seen dëkku maam ñu ñëw nag ne fa bokk te juddoowuñu fa yooyu day bokk ci li nga xamante ne day indi incident yu yu demee nii parce que des fois ñi dëkk ca localité ba sax bëgg fa def politique dañuy am problème parce que ay nit ñu xam parce que foo bokkul mënuloo koo bëgg ak ñi nga xamante ne foofu kese la ñu am waaw mënta doon benn c'est pas la même chose euh, France Sénat bi dafa décider ne dafay maintenir euh, les forces françaises mooy seen camp yi nga xam ne ñoom la ñuy yore ci dans les pays francophones parce que il était question que ni euh, dañu waroon jël ay décisions xam ngeen rencontre Afrique France bi am na fi bërki démb muy la rencontre France Afrique waxoon nañ ci ñun tamit li nga xamante ne moom lañ ci xalaat waaye journaux yi bind nañu ci pour wane ne France mënul dund sans les colonies démb am nañ ci waxtaan wu am njariñ buñ ci def ak sunu xarit Pape Cheikh Sène c'est-à-dire que ni l'avenir de la France c'est les quatorze colonies françaises en Afrique La France a besoin de nos matières premières. La France a besoin de nos ressources humaines Tay amna ay postes stratégiques yo xamantene ci rewma ay africains qui travaillent dans l'ombre ño xamne ken kenn du leen mos jox micro wala ñu wax len lo xamne France da koy tiitaroo ay doomu Afrique ñoo koy def génne ko ñu ñoom ñu génne ko di wax né ñoo ko def waaye suñu doomu koy def France munu départiru ci ñun ñun nag division yu mel ni yii xew ci réew mi tey mooy grève yi nga xam ne du jeex perturbation de l'éducation de la santé manque d'emploi yi xëccoo politiciens yi seen rayante seen biir pour des ambitions personnelles moom moo ñu yóbbu ci tey ñu toll foo xamante ne ndeysaan képp kuy doomu Sénégal bu am xam-xam bu tuuti li ngay njëkk ñaan mooy génn réew mi dem sa yoon moy dem dugg ci li nga xamantene moy xew mais France mënuñoo bàyyi Sénat bu France du jël décision ne nañu indi sen militaire yi nañu sen coopération yi nga ne lañu am ak yi ñu wu ci France kessé ne du a à moins que nous ñu fait, sunu liberté suñu ko deful duñu ko mos a duñu comme niñu ko defee woon naan vous voulez l'indépendance prenez-la yooyu xewina na te yooyu bi France def elle était consciente que nous allons être dépendants ah, wallahi biko biko France def am nga mécanisme yi nga xamantene jaratul ngay ray ay nit parce que bo reyee ay nit ay ressources humaines ngay ray jaratu ko ñu ne jox len ko rek ñu créer len ay puppet ñu ñuy jité di len jox ay moyens ñuy dóore li ñu doon bañal ñom Lat Joor ak ñoom Alburi ñun ñu jox leen président boo xamante la même chose parce que ñoom loolu la gëm affaire royauté la nous gëm ku ñu fal président ñu dem féliciter sa yaay ak sa papa commencé di la un passé royal même bu fekkee ne ab jaam nga woon wala doo woon dara sax parce que affaire jaam sax affaire jaay doole kese la woon ku mën sa morom rek def ko def ko def ko def ko mais dañ lay un passé royal pour wane ne lii yow da nga alors que da nga yalwaan peuple bi ba mu jox la ko loolu faaw ñu jug ci beneen événement bi nga xamante ne nag daanaka moom laay moom laay tàqalikoo moom moo di mbirum avortement mbirum avortement dal, mu ngi taal réew mi de dama xamul ndax ndax nit ñi xam nañ ko wala déet dafa am ay nit ñu ci doon waxtaan ñu ne ci génération bi nga été ne début des années 80, fin des années 70 et début début années 80. nous ñu ci ci sujet bu sensible la forum yi bi ci doon waxtane damay baña génné secret bi ndax bokon na ci ñi ci doon waxtaan waxtane mu melni damay génné seen information mo fee année soixante dix début année quatre vingt yi euh, jigéen ñu bëri yi tolloon ci jamono jooju am entre seize ans jëm trente ans dañoo am ay pro dañoo amoon ay problème mu am doom parce que nee na te loolu dafa tombé woon a coïncidence su mbirum pilule pilule yi nga xam ne dalay tere nga am doom génn mbirum préservatif aussi dafa tombe mu gën a génn góor ñi di yor pré di yore seeni mbuusu préservatif jigéen ñi di naan seen pilule mooy fin 1970 yi année 70 yi ak début année 80 yi ba 90 loolu mooy li nga xam ne moo xewoon nit ñi di nekk ci lu leen neex góor ñi di di di di di yore seen i seen i jigéen ñi di naan seen i doom ñu ne génération boobu ci Sénégal te léegi ñu koy def kat ñu ngi ci ñun kat ñiy def études yooyu ñu ngi ci ñun de xam nga nit ñi dañuy def ne nit ñi xamuñu lu xew mais nit ñi dañuy def ay études xam ko ba pare noppi am na ci ñeneen ci jamono jooju góor yi am entre 16 ans ba jëm 30 ans ñu ci bëri ba tey ñu ngi dund amuñu doom ñu ci bëri ci jigéen ñi génération boobu ñi ci ëpp nag la ñuy wax loolu mooy plus de la plus de cinquante pour cent de cette jeunesse là góor ñi am nañu problème am doom jigéen ñi tamit am nañu problème am doom parce que après day am ay ay ay circonstances sociales yuy xew dégg nga jaxe boole ko ak yow responsabilité individuelle boo xam ne moom ngay def ba du ñu am ay doom des fois dañuy passé bi jigéen ñi tamit foowee loolu ba pilule lii nekk ci seen yaram yi ba bis bu ñu demee ba arrêté ko sax dañuy am problème am doom moom la étude bi def forum bi bokk waxtaan wi ñu dem ba jamono ju ñu toll nii nag non seulement extérieur da ci dugal loxoom parce que déggoon ngeen fi ministre de la santé muy wax ne ñun danoo bari di wax ab fen bu rëy parce que dañuy bokk ci ay organisme yoo xamante ne ñoom li ñuy liggéey moy le rédu la réduction des populations africaines loolu rek lañ ci djublo ah ba mbirum vaccination yi ñi wax ni amna ci ño xamne bëggu bëgguñoo vacciner parce que japp nañu ne Afrique moy le problème parce que fi gaay yi jaar ba Inde rëcc len ak Pakistan ak Chine ñu Afrique jaar fa Afrique bu yéwo rek aduna bi tukki <laughs> xana xamu leen loolu Afrique non parce que lu Afrique l'Africain est émotionnel su ci boolee am doole mais musiba day xew africain tak tak boo laalee sa croyance mun na la cee rey soo laalee euh, sa tribu mën na la cee rey xeetam mën na la cee rey parce que émotion lay njëkk a demee du demee xalaat ñu ne kii bu amee doole musiba am ñii bu ñu bëree musiba am moo tax dañu ñuy contrôler comme de l'huile sur le fa jëm jël sunu ay ministre de la santé mu naan nañu wàññi njur gi nangam sàngam boo doo am loo leen dundalee léegi nag tax na fu mu toll génération bi ñu toll nii jigéen ñu bëri non seulement ñàkk gi daa metti ba góor ñi takkatuñu jigéen ñi sëyatuñu parce que amatuñu ñu leen yore mais affaire yi dafa jaxasoo ba nga xamante ne léegi ministère yi ñooy jaay ci ay organisation non gouvernementale di financer nit ñi ay mbir pour ñu bañ a jur doom wala ñu wala bu ñu juree doom ba pare ñu defal leen avortement en 2020 il y a eu 34 000 avortements la ilaha illallah mais sëñ bi xanaa gisoo loolu ni mu bëree 34 000 avortements en 2020 loolu la ñu génnee xam ne loolu metti na ay rey nit jigéen ëmb nga ne ko doo ëmb am ño xamne sax ci ay sey lañu nekkon mais bëgguñu fa won am doom ñu encourager leen ñu avorter wala am won nañu benn bi accident la troisième bi ñëw na ñu ne ñom daal ñaar lañu bëggoon am ñi ne benn lañu bëggoon am ñu ne bi daal nañu dem dindi ko wala mère nañu way nañu dem dindi ko parce que yi entre en jeu dafa bëri hein ah. parce que do am loko yoré nañu dem ñu dindiko, ko 34000 te man ma ngi leen di wax semaine passée mané leen ñun Afrique bu ñu yeexee tuuti sax gàmbi raw ñu mun naa la ko waatal te ñoom bariwuñu bu ñuy dof dof lu gàmbi di ñu rey parce que dañuy jël ay pays phare di fa def test bi di leen encourager ñu ne ah, waa Sénégal dañu koy def donc pourquoi pas waa Côte d'Ivoire mais dëkk yi ñu wër yëpp ci Afrique ko francophone bi boo leen seetee ñoo ci gën a néewle ñu ñëpp ñu ëpp ay population ñaan la ay ay di exagérer sax naan la ay 17 millions te man xam naa ne yegguñu fa ndax ñeneen ñi ñooy ñëw suñu réew yi léegi nii. legi nak ñu ngi encourager nit ñi pour ñuy def euh lolu ñuy wax avortement bëri na lol ci rew mi 34000 en 2000 euh en 2020 donc ko 2021 mu ngi jeex ci inshallah yalla nañ ko fekkee dinañu fi andil chiffre bu ko upp ndax affaire bi da fay dem crescendo senegal lolu gëmuñu ko won waye fu mu toll ni mu ngi dem crescendo lolu dal la xamantene bëggoon naa ko waxtaane tey tey bis bu metti la ndax man rek maa nekkoon ci ci ligne bi di waxtaane waaye bu sooba yàlla suba dinañ fexe am gan ak ginnaaw suba ko bu defee ñu mu doon une interview ngeen ngeen ngeen bañ a doyal ci man <laughs> donc mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jéggalu képp koo xamante ne woote nga euh, asafurla képp koo xamante ne yaa ngi ñu doon déglu te dégg fi loo xamante ne neexu ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax di leen balo ak di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen jabot di leen jox dox daje suba ci beneen émission l'info autrement jërë ngeen jëf sunu

des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si leneen lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement On est surcharge bu 10. ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat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

Anglo Player.